Euh, koo xam ne xamul lu ko dal nga xam ne dem na hôpital ñu rajo ko fu ne analyse xool gisuñu bi jàngoro imam imam nañ ko bindal kon woo police war day taali oustaz ñu war laa <laughs> atte ñu war ko atte oustaz war ko atte kon mu ragal ne bu demee dana ko tëj mhm. bu defee lii bu day dem ñibbisi ñu ngi lay ñaan nga abonné te bës cloche notification vidéo ñu dugal rek nga mën ko am looy imam mhm. euh, te rek la koy takk bu waxagul kenn incha allahu taala téere bi li feeg mi ngi moom Euh, du am doom lu fekkiwu ko waaw kon loolu jëm ci wàllum ndef planning familial waaw imaam mm. euh, koo xam ne gone go dafa yéex a wax waaw dafa yéex a wax mm. bindal rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani fi qawli ila ba bi jeex mm-hmm. yaa ngi ko bind ñaar fukki yoon ak benn vingt et bu ko wóot meewum nag def ca jox ko ko mu koy naan a wax euh, mu koy naan juróom-ñaari fan waaw vingt et ngay bind aaya bi boo jambee li nga bind wut meewum nag di koy naan incha allahu taala suñu borom dana fecc làmmiñ wa mhm. ba dana wax incha allah mhm. imaam képp ku bëgg bayre bayre bayre bu saf sàppa ngi nii bayre góor waaw bayre jigéen bayre mbooloo bayre lépp lépp la boole waaw imaam hmm. ku bëgg bayre waaw da ngay bind yaa woo duudu six yaa bu di soixante-dix yaa xëydi soixante-dix suy na soixante-dix waaw àllam soixante-dix nga boole ko déru mbët hmm. wala boo ko jambee bu nopi wu safaran def ci deru mbeut def ci safara sa sango ko juróom-ñaari fan way imam hmm. bour dana ci waaw président dana la wusi kilifa dana la wusi si borom alal dana wusi wuy si te ñepp lay bëgg président bëgg na mu wusi ma dama ñepp lay bëgg wax vraiment <laughs> non faaw ma def ko nag président wusi ma ma ko li ma ko bëgg wax ñepp gi imam hmm. bayre bi bayre bu saf sap la bo xamne hmm. defal nañ ko ay nit ñu gis waaw waaw waaw waaw waaw ah. waaw bu ko defee da nga koy sango 14 jours 14 jours waaw fan ak ñeent waaw imam euh, képp ko am ak waxo waxu mooy ah, ah, Ahmed ah, wala koo xam si ne da doon lekk yàq lañ ko waaw ba tey lii moo koy dindi muy ay baat yu ñuy mocc la waaw suxoodun suxoodun nuxoodun nuxoodun mm. mm. juus juus juróom-ñaari yoon <laughs> kese imaam bu doon ak yàq boo ko defalee mu dañ mu dañ dama ko def suxoodun nuxoodun lii waaw defal ku doon lekk ak yax galañu ko juus xaw naa niroog jeef de juus juus waaw waaw <laughs> boo ko defee mu dañ bu dee lekk bu dee yàq moo ko galañ hmm. ci cere nga koy defal wala tibu ceeb tif tif ko ci bu koy lekk mi dañ waaye ka bu dee ku am asim ku ak waxam di metti <coughs> imam boo ko taree juróom-ñaari bokk ko tiflee ci baat bi insha allahu taala mu yëg ak tane bu baax baax imam hmm. kun woo police war day taal sas <laughs> hmm, Nyuar ñu war la atte ñu war ko atte sas ñu war ko atte kon mu ragal na bu demee dana ko tëj bu defee lii bu day dem très bien min xawfin min xawfin bind ko 33 fois sangoo ko doo ko dem benn yoon boo demee foo dem dikkaat. boo amul bi nag. waaw <laughs> temps bi boo demee toog rek. imaam <laughs> mag muy sawlal. Oh, lii da koy dindi. ba baaxul de. mag muy sawlal xam nga loolu rab moo koy def. waaw imaam lii da koy dindi. def gis laa la wax lii da koy dindi. muy lan mm. da ko bind alamtara kayfa ba mu jeex juróom-ñaari alamtara. waaw ne benn benn wut ñetti takki naana waaw jëm bi alamtari def ñetti takki naana mu koy naan guddi wallahi la ngasib juróom-ñaari fan bu matee mag ma daan sawlal da koy bax waaw waaw ak bu dee gone gi sawlal waaye ci mag mi sawlal ci la gën a gaaw képp koo xam ne wax daa dal sa kaw coow nga bëgg mu fay mu fay waaw imam Hmm. yar naa boo xam ne si ne. waaw même boo rayoon nit boo demee kenn du la tëj wallahi alazim. waaw waaw waaw waaw. billahi wallahi alazim boo boo rayoon nit boo demee. wax jee bëri waaye kenn du la tëj. boo rayoon nit waaw. boo rayoon nit laa la wax. waaw bu rayoon nit waaw bu rayoon nit. ok waaw ah. imam fay wax a ngi nii. Hmm. kullama waxada naaran. Hmm. ngay bind aaya bi wow. yaatal kullama mim gi waaw at fa <laughs> nga yaatal faa gi wow. def sa tur ak sa sant wu juróom-ñaari xal fay ko ca sangoo ko juróom-ñaari fan waaw coow lum rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy day fay day fay kenn dootu wax waay imaam ñam bu bon nan ngay xamee ne ñam yi ñam bu bon la waaw balaa loolu sax euh, loo xam si tey bokk ku andi ci yow ñam bu bon bu ne ñam bon mooy ñamun posene ñam koy ñamun def liggéey hmm. ngir bëgg laa dëddal ak soxna noo koy euh, ñam woo balaa agsi day këpp ay tànkam hmm. waxoon naa ko waaye bu dee bii moom boo ko defee hmm. ñam yi bu dee ñam la boo tiimee ñam yi day soppeeku waaw te lii boo ko defee gis nga linjan men waaw boo ko fekk li def ko wallahi langasib da nga koy tour ndox waye du billahi wallaay langasib xam nga bu day ginnaaw ñu tagal la ko oustad tamit mm-hmm. da cey bax waaw lii boo ko mm. ñam bu dé dañ cee def lu bon mm. ñu mom moy soppeku soppeku moy lan imam mm. bismillah bismillahi rahim la ilaha illa ant mom mm-hmm. ngay wax juróom ñaar yoon waye nak sa baram sànq lañ bu ndey jor bi nga koy tek ci wetu gimin gi wax ko bismillahi la ilaha illa ant baaraam boo ko dugalee ci ñam bi boo xoolee ñam bi bu dee ñam bon day soppeeku day yor beneen couleur. beneen couleur couleur bu moom la yor. nga xam ne lii daa bon nga daa bon nga jug bokk fa. très jëlal jël jëlal linjan ba posen def ci ñam nga nga koy gis ci boppam. da nga koy gis waaw loolu moom euh, ku euh, ku awraam nooy. Hmm, boo baaxul de oustaz. baax na kay. ku awraam nooy. waaw ah. nooy li koy dindi laa bëgg wax loolu baax na. waaw mais bu nooy moo awra boo xam ne dafa nooy man waaw du teeng ni a teenge waaw imaam hmm. euh, day bind surtout xaddri xaddri mooy wan saar waaw mooy inaantal naaw juróom-ñaari nga koy ko reen dox xaar di ka naan waaw o oh, koŋ lay def su yéen juróom-ñaari fan da koy hmm. may maye bopp métti di sonal bu leen demee imaam boo ko dakk ko sa bopp day daal saat baatu tur ak santam def ko téere bu maam tàggoo nga ak bopp mu jeex tàkk mu jeex tàkk waaw euh, koo xam ne hmm. <laughs> wala waxtu jeex na eh, koo xam ne xamul ko dal nga xam ne dem na hôpital ñu rajo ko fu ne analyse xool gisuñu bi jàngoro imam imam nañu ko bindal la allahu la ilaha illa huwa al qayyum 333 ayatu kursi 70 fois wa in yakadu 70 fois hmm. boole ko eh, reenu gi boo defee mu mu mu mbaxal ko ba mbax bàyyi mu seet mu sangoo ko insha allah hmm. lépp lu fekkoon ci yaramam day daal di dañ bés bi masha allah hmm. ay wa ngi lay ñaan nga bés vidéo bi bëri na ay njariñ lool man nga ko seetaan jaajëf